Yowaana saar fukk juróom man maay garab gu wóor gi te sama baay mooy beykat bi car bu soqi ko ci man te dina ko dog sànni waaye car bu ci meññ dina ko tenqi ngir mu gëna a meññ yéen nag baay bi setal na leen jaalale ko ci kàddu gi ma leen wax ni beykat di tenge garabam saxleen ci man ma sax man itam ci yéen ni cer mënula ame ay doom bu saxul ci garab noonu itam du ngeen mën a meññ li may jëfe ci yéen bu ngeen saxul ci man man maay garab gi yéen yéenay car yi ki sax ci man te ma sax ci moom dina meññ ndaxte bu ngeen saxul ci man du ngeen man dara ku saxul ci man dinañu ko sànni ci biti mu mel ni car bu ñu dagg ba mu wow car yu wow nag dañu leen di buub sànni ca safara ñu lakk bu ngeen saxee ci man te saxal samay wax ci seen xol lu ngeen ñaan mu nangu liy feeñal sama ndamu baay moo di ngeen di gën a meññ tey wone noonu ne samay taalibe ngeen ni ma baay bi bëgge noonu itam laa leen bëgge saxleen ci mbëggeel googu ma am ci yéen bu ngeen toppee samay ndigal dingeen sax ci sama mbëggeel ni ma toppe sama ndigali baay ba tax ma sax ci mbëggeelam wax naa leen loolu ngi ngeen bokk ci sama mbég te seen bos mat sëkk sama ndigeel mooy ngeen bëggante ni ma leen bëgge genn mbëggeel mënula weesu joxe sa bakkan ngir say xarit samay xarit ngeen ci kaw ngeen def li ma santaane dootuma leen wooye jaam ndaxte jaam du xam li sangam di def xarit laa leen wooye ndaxte xamal naa leen li ma jële lépp ci sama baay du yéen yéena ma tànn waaye man maa leen tànn sas leen ngeen dem meññ meññeef gu sax ngir baay bi def lu ngeen ko ñaan ci sama tur li may santaane nag mooy ngeen bëggante bu leen àddina bañee xam leen ni man lañu jëkk a bañ ñi bokk ci ñoom lañu bëgg bu ngeen bokkoon ci ñoom dinañu leen bëgg ni ñu bëggee seeni ñooñ waaye bokkuleen ci àddina ndaxte maa leen tànn ber leen looloo tax ñu bañ leen fàttaliku leen li ma leen wax jaam gënula màgg sangam bu ñu ma sonalee dinañu leen sonal yéen itam bu ñu toppee sama wax dinañu topp seen wax yéen itam waaye loolu lépp dinañu leen ko def ndax man ndaxte xamuñu ki ma yónni su ma ñëwul woon ne leen dara duñu am bàkkaar waaye léegi amuñu lay ngir seeni bàkkaar ku ma bañ bañ nga itam sama baay su ma deful woon ci seen biir jëf yu kenn deful kon duñu am bàkkaar waaye léegi nag gis nañu samay jëf te teewul ñu bañ nu man ak sama baay waaye loolu am na ngir kàddu gi am kàddu gi ñu bind ci seen yoon bañ nañu ma ci dara dimbalikat bi dina ñëw mooy xel mu jóge ci baay bi te yor dëgg gi dina jóge ci baay bi ma yebal ko ci yéen moom nag moo may seedeeli te yéen itam dingeen seede samay mbir ndaxte yéen a nekkoon ak man ca njaalbeen ga